asalaamaaleykum mbokk senegal ñu nekk ci biir réew bi ak ñu nekk ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen massawu tamit ci li nga xamante ni moom moo dal tey ci réew mi comme ni ko sunu naataango yëpp waxee te noonu ñu ko waxee noonu la ko réew mi yëpp waxee ndax bi mbir mi wàccee ba tey sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp ñoo ngi woote.